bonjour les amis comment vous allez j'espère que ça va yi tey waxtaan bi lenn la muy série Virginie Virginie nag di série bu neex série boo xamante ni Sénégal yi bëri koy suivre si di koy yéen bi te abonné ko si di laaj ci xamante ni mooy mooy Ndaw mu ñëw xale bi jigéen bi ne ko koy laajte ah bi gis ngay laajte papa bi mer na sama doom tuddee ma ko bi gis Ndaw laa ko tuddee paa bi nag ñu teetal ko fi nga xamante ni moom la Bigis fa foofu la Bigis nekk mu ñëw fekk fa fekk fa Bigis ñoom Bigis dañoo tiit sax léegi nag paa bi ki nga xamante ni mooy Bigis xas ko léegi ki nga xamante ni mooy tos nag moo ñëw attaqué paa bi wax ak moom mm, c'est que Bigis xamee na ko kii sama papa la léegi si la tos commencé wàcc nag léegi ki nga xamante ni mooy Matar nag daal dem wax ak ki nga xamante ni mooy promoteur bi pour mu ñëw wax ak paa bi balaa làmb ji di tas léegi nag. léegi tos nag mujj ñëw di jégalu paa bi di wax ak paa paa bi tamit xas ko mu daal di dem léegi nag ki nga xamante ni mooy promoteur bi daal di ñëw nag wax ak paa bi wax ak paa bi ba sonn mais paa bi faalewu ko ba promoteur bi xamal ko ne ko lii su ma ko tëggut mën naa si dem police paa bi bañ rek jàpp fa mu jàppoon rek waaye ki nga xamante ni mooy bi gis nag bëgg naa bare combat bi ba tax mu ñëw waxtaane papaam na ko papa yaa ma doon fàttali ne sama maam bokk na si ñi dàqoon a bëre ñi gën a ràññeeku si làmb ji ma waxee loolu paa bi nag paa bi nag yaramam daal daw paa bi ñëw waxtaane ki xamante ni mooy Big Gis paa bi nag waxtaane moom mais paa bi nakate seen maam dañ leen dañ leen waroon dañ leen a waroon si si wàllum mystique gàllaaj ji ba daan seen maam ba seen maam mu du tut buñ bëree buñ ko bëree buñ bëree dañ koy daan paa bi nag lu si loolu lay dawalee Big Gis mais Big Gis nag mujj na ko ñaan na ko man kaa bëgg leen ngeen am doom ji sët sama sama maam am sët boo xamante ni ku gën a ràññee ko si làmb lay nekk muy man léegi nag paa bi yaramam daal daw paa bi daal di bàyyi ki nga xamante ni mooy yi mais paa bi fàttali ko fàttali na ko ne ko sa maam ku mënoon a la sa maam ku a plaqué la paa bi nag boole ko jooy moom muy kontaan di daw ndax bigis dana daan làmb ji wala du ko daan épisode bii di ñëw dana leer la ñaan si fekkee dana gën nga seen bu taabane boole si ñu ngi leen ñaara ngeen abonné te bu leen fàtte bés koros notification bi jaa ngi jëf gars yi